alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa yàlla di gërëm ñi nga xam ne ñoo ñu boole ci waxtaan wi muy waxtaanu Baye ak aspect politique ci doxalinam Baye politique taxu koo jóg diplomatie du mooy mission waye ci bir mission am bu laaje am position politique bo xamne da fay dimbale mission bo wala da fay dimbale talibé da fay taxaw ci fi nga xamne ne fële lislaam taxawee waxtaan wi nak ma ngi togn légui suma zemil Cheikh Ali ne ko yéen diplomate yi yéen lañ ko warona jox waye sahafi mo ëpp man suma formation journaliste là de formation et de métier ma ko journaliste yi nak ñoo ëpp liberté diplomate dañuy bëri réserve Motax yak sama mbokk Babacar yene diplomate yi waye buñu leen ko joxoon amal na fi may ñëmé yegg journaliste mom ne nañ gone gàdd ga la lu mu ci bargaine ba rek dana ko wol. bon diplomate yi nak ñom dañuy am réserve sañuñ loolu moo tax bi ñuy ba Yalla may ñu ñu gis bépp taqrir istixbaaraat lépp muraasalaat bu diplomate def bu askanu ci France mu aju ci bay ci commencement yu fayda bi ba 69 Document yi ñu gis yépp ñu tamponné ci def ci ne secret la wala confidentiel la wala division restreinte la warul génn biñ ko gisee fekk ñoom ñu déclassifié ko moo tax ku doon gis li ñuy bind léeg-léeg nga gis bu ñu tegee document ñu bind ci secret ñun suñ ko waxee weeruñ secret d'état parce que document yi dañ ko déclassifié ne léegi kat dootu secret génn na ca fañ ko nëbboon mais léegi taarix la baaxis bu ñu wóolu mën nañ la ko jox yàlla def ñi ñu gisu ko biñ ko gisee fa jamaana ma tafaraqa zamanan wa makanan ñu jéem ko taxlil gis ne bàyyi ci biir masiram ñi nga xamne nak ñoy rais raisul jilsa ak munasiq bu ñu jéxalé rek nañ ñi ko téla wan parce que dama bëgg iltizam bi onsilal waxtu itim ndax ñi ñëw te togaay bi yag na bu déssé 5 minutes rek nañ ñi def ci inshallah parce que ñun ñëpp war nañ jéma a ci temps ndax mbir mi non la démé ndax ñi ci déss tim bu ñu leen dax te jël ci seen temps lu bari al muhim bi ñu gisé lool ñu gis ne Mawlaaya Cheikh al Islam sahibul faydatul kubra faydala indi adina addina ci ko ci loolu waye bi ko uyoo surtout bi mu jógee ajam gu ñu aj gi aj gu njëkk ba ñibbisi si mbooleem chef de canton yi ak ñi nekkoon ngànkoon gouvernement beeg administration bi dañ koo song noonoo gi dafa tat gën a tar ci biir noonoo googu nag politiciens yi ñoo ci ëppoon ak chef de canton yi xool na leen itam am na ci ñoo xam ne bi mu gisee seen programme gis na ne programme bi xaw na sori moom fi mu jëm mu am position moom itam jël position ci ñi nga xam ne seen programme dépôt na ak dépôt na ak ñoom jakarlo bi ci gëna a waxna wax naa ne moom ak Ngalando la ngalondo bi mu gagné ñi andon ak mom dañu tëkku baay ne jeexal na gënaaw ngalondo tok na ci jal bi fal nañ ko mu wara téwal Afrique téwal Sénégal ci majlis bi nga xam mo moo France Bourbon téwal fa Sénégal Blaise Diagne moko fi jiitoon bim mu bim mom moom lañ jël toftal ko fa bam fa nekké ñi tëkku bàyyi ne fay jéxal parce que ngalaw na jël na ndam bi xamuñu cheikh cheikh al islam biñ ko tëkkoo moom dafa daal di bind leetal Cheikh Omar fay ca gambi ne ko gaañaa ñi tëkku waaye xamuñ man boolewuma yàlla ak dara te nu la aarif yàlla rek gisuma yàlla ne yàlla ak nangam al aarifu billaahi laa bi gayrihi ñii nii danañ gis kéemaan balaa yàgg yàggul Ngalandou Diouf ñëw fekk si ko ne ko sax ñaanal ma loolu fan lañ ko jëlee ñu ngi ko jëlee ci lettre boo xam ne suñu maam Mouhamed Zeynab moo ko ko bind di tontu baay gisuma lettre baay bi waaye gis naa lettre tontu suñu maam jooj bind ko ne ko bi ma yëgee ne ngelaw na seet si na la am naa ci mbég mbégte lool ndax man mënumaa comprendre nit ku ne dafa bugg a defar Sénégal ba pare di la cof ba léegi wax jooju mu ngi di rey sembaanam ci ñun nit mënul defar Sénégal cof baay loolu xaaj Mouhamed Zeynab moo ko waxoon bay moo tax mu ne ko nii rek la man a demee mooy ngelaw na mujj fekk si la gannaaw gi nag am na yu bëri yi xew dañuy résumer lool France ci boppam mujj na changé doxalinam ak Sénégal ndax mujj nañ xam ne lu mu yàgg-yàgg réew yi dañ jël indépendance ñoom ñi commencé di neexal sëriñ si nee naa Vincent Auriol moo doon président wu al xukuma al muaqata gouvernement provisoire bi nekkoon France moom moo ko jiite woon bi mu ñëwee ànd na ak wasiru wasir François Mawar al Bihar biñ ñëwee indil nañ bàyyi sax ay légion d'honneur yoo xam ne dañ ko ko jox teralee ko ko boobu nag ci la gars yi commencé xam ne France a ngi changé stratégie ñoom itam ni ñu noonoon ñi ñu jàpp ne noonu France lañ dañuy daal di wàññi ñoom it tuuti mais mbir yi dafa jibaat bi muy jibaatee mooy bi nga xamee ne Senghor moom am na parti partie bi nga xam ne moom la ñuy wax BDS bokkut ak PDS bu Abdoulaye Wade moom bee la kii P la BDS Baye gis ne mi ngi war a jàkkaaroog Lamine te Baye nee na ñaar heure bu xaccooyee man bi gën a jege yonent bi lay ànd ak sallallahu alayhi wa sallam du ma gis Léopold di xaccoog Mouhamadul Amin may faral Léopold ci kaw Mouhamadul Amin bi xaddi nasaran barnaamij siyaasi mu nekk ànd ak Lamine foofa nag biñ ne ko BDS la wax bayt yi nga xam ne moom lañ nantaari lool ne bee bi BDS bloc démocratique sénégalais bàyyi ne bi la aks albaa ubaa ul busi wa daalu daalu damaari wa siinu siinu saqar def ko ci benn baytam ne tawayta waqad tabbat yadaaka waqad anat kanisatuka sawdaa li diini wa azanat ba yegg ci jita bi baa il kufsi kufri bi baa il busi ثم دمار من إلى سقر تدعوهم فئة بغض

té suñu relation ak ñom dañuy continuer duñ def rupture gis nga Guinée gi ko defoon français bi ñuy génn seen bureau yi ba ci lamp yi dañ ko toj di buddi prise au lieu nag France raxas Sénégal bam sét doñ ko bayé dañuy def benn transition suñ paré ñu am indépendance Cheikh Ibrahim ci mawqif boobu la Japon. ak lim xéxal indépendance yëpp waaye xam na né mo gën ñu jàkkaarloo di daane université daane suñu xobbi bi suñu tali mu jàppale len ci wi bop ci la taxaw ci nga ne ne nono, dañuy way yonent bi buñu wate ñu wate wi wi gagné biñ bi rek dafa ci position am di wax ci am indépendance gis ngeen bi le feebar waxé ci mbiru euh, nègre wax ci mbiru Afrique ci la bind ba lim suñu jógee foofu bokk na ci note yi bindoon ngir dawlu gaaw Sénégal dafa daal di am indépendance xam ngeen ne euh, Mawlaay Cheikh al Islam relation ak diplomatie mu ngi tàmbali ci fekk na Sénégal amut indépendance fi xajjati ula dafa dem Arabie Saoudite aji ci biir aj gi la ko kilifa yi fekk ci biir tàntam ca Minan moo ko bindal boppam mi ngi ci rihlat xijaziya al ula ne dafa am ku ma fa fekk si ñaari kilifa Aminul Hussein fekk na ko fa Riadi Solha ki nga xam ne moo njëkk a doon premier ministre bu Liban ci bu Liban fekk na ko fa fekk na ko fa ku ñuy wax Izzat Doroza fekk na ko fa ak Bachir Saadawi Libya la nekkoon bàyyi moo leen bindal boppam wax ci ñooñu ñëpp ñooñu ay kilifa yoo xam ne wax nañ ne xam nañ boobu ne am na lu ñuy wax waadu Belfort waadu Belfort mooy fi Palestine nekk tey

yi mu amat ak leader yi nga xam ne ñoo nekk ci monde islamique bi ak monde monde arabe Jamal Abdou Nasir doy na ci tegtal te kum ci àndati ci bu du tee bu dëgg jotee mu wax la ko Abdou Nasir bi mu tamimee nationalisé canal de Suez bàyyi daf ko bind ndokkeel ko injaazaat yu mu def bàyyi daf koy bind ndokkeel ko waaye bi ñu pertee xeex bi daf ne ko yaa bàyyi li ñu yónent bi waxoon ittaqi ittaqillaha ya Abdou Nasir aw ittaqillaha yaa axi noonu la ko waxee woon baat boo gis na li muy nit lu simple tàppel ci internet bi léegi rek ñëpp a ngi connecté wu ittaqillaha yaa Abdou Nasr nga gis ki ko waxoon lan moo ko ci fekk Abdou Nasr dafa allergie baat boobu te bàyyi du jóg Égypte xam na ne Abdou Nasr ki ko ko waxoon fi mujj bugguma cee dugg ndax suñu ma waxtu bi jeex na waaye boo tàppee rek ittaqillaha yaa Abdou Nasr wala ittaqillaha yaa Jamal Abdou Nasr da nga gis ki ko fi waxoon lem dem ak kooku ni mu doon kilifa dem ba doon vice président am waaye du ma ma ci dugg teewul bàyyi li muy doon doon xaritam ba xew-xew bi amee def na ko ittaqillaha ya axi wax ko ne ko yaa bàyyi li ñu yonent bi fànk doon ci biir diplomatie boobu comme neexoon mën nga ci dugg dox yi nga xam ne dox na ko pour Afrique di ko ak monde arabe bi di dimbalante lu africain yi am te arabe yi amuñ ko ñu jox leen ko lu arabe yi amul te ñun ñu ñu am ko lu ñu amul ñun te yi am ko ñu dem jëli ko ci ñoom bokk na ci mutamaru Bagdad ku amoon temps mën cee dugg ci nga xam ne fa lañ ko defee naa naibu rais ci mutamar boobu te sax nekk fa xaj Abdoulaye la ebal suñu nijaay ak euh, oustaz Ibrahima Mahmoud jóob yebal benn taalib bi bu ñuy wax Habib ñam mu jugee Prague parce que kurma moo ko yónni woon foofa mu mu fekk leen fa muraasalaatam yi man rasd naa ba ci lu jege fanweeri lettre yoo xam ne moom ak Jamal Abdou la min minhu aw ilayhi ak Abdul Asim parce que ñoom ñëpp ko doon bind mu leen di bind moom ak Anwar Sadat moom ak Abdul Karim Xaasim moom ak euh, Maghfour Lahu Hasan Sani moom ak Wuldada moom ak Mathieu Kériko bu Bénin moom ak Houphouët Boigny moom ak Yakuba Gawon moom ak Raïs Wazara Sardawna moom ak Kwame Nkrumah yooyu yëpp jot ma yow dund ko moom ak Georges Pompidou ak ak kan Sékou Touré wa ci muraasalaati Cheikh Touré yi sax ci lañ gis benn boo xam ne Cheikh Touré mi ngi koy jaale suñu maam Serigne mbay mi nga xam ne moom lañu tuddee bés bi ñu ngi ciy bég loolu waxoon nañ ci suñu muqaddima wax ji ne euh, furuu yi ñoo dellu ci usul yi fàttaliku leen du ñoom lay yokk ñoom pare nañ li defoon am nañ ko ba pare li amoon am nañ ko ba pare waaye ñun lay dolli ndax bàyyi ca euh, jaamiatu umul qura dafa waxoon ne euh, banqaas yi du ñu mën a dëgër fekk suñ ci reen bu dëgër waaye reen bu dëgër itam teraangaam la banqaas yi bëri comme banqaas yi nga xam ne ñoo fi teew nii mel ni suñu xalifa cheikh Mouhamadul Alhamdul Maahi muraasalatam ak wisaaratul awqaaf yi ci alamul islaam yi yépp am nañ ci yu bëri yimu bind ak rabitatu alam islami moom itam lu upp fanweeri lettre mi ngi fi yo xamne bu ko jot maye ndi dugg ci waye jot maye wut ko te waxtu wi dab nañi ñi ngi gëreem ñëpp ci déglu bi ne du ñak ñi am yeneen force leral ko du ñak ñi am yeneen force sax xeyna bind ko joxe tafaas yu lettre bu nekk li nga xamne moko wër ñi ngi jéggalu buñu dëlé assalamu alaykum wa rahmatullah लिए ये नहीं लिखे